pour tout le monde euh, fépp fu ngeen mënti nekk rek dañuy ñaan juste émission bi fekk leen ci jàmm fekk leen ci salaam di leen fàttali rek ne tam lépp lu ñu fi mën a wax rek sunuy xalaat la ñuy joxe sunu ay analyse la ñuy joxe te ñun ni ñu amee ay xalaat di am ay analyse tam di ko wax ñeneen à côté am nañu seeni xalaat am na ñu ay avis sañ nañ ko défendre également loolooy principe bu émission bi muy grande gueule boo xam ne dañ ko adapté campagne électorale bi parce que yéen cee ànd ak yéen comme nag assemblée ñëpp ci bokk looloo tax depuis lors ñu ngi dalal ay coalition ñi nekk en lice wala bokk ñoo xam ne dañ leen recalé ngir ñoom tamit ñu bokk ci débat bi comme yëfi assemblée nationale la suñuy ay ndaw lañ fay war a fal ñoom ñoo ñu fa war a teewal ñoo ñu fa war a yeggee suñuy kàddu ak suñuy doléance ak mën ñoo contrôler également yu bëree bëre donc ce qui veut dire que ñëpp ci bokk effectivement ñun dañ ciy boole ñëpp ni ñu ko doon defee également euh, am peut-être l'ambiance sur le terrain tey ji on a envie d'aller à Euh, ngir xam campagne bi naka la fa demee mais également yéen am ngeen possibilité woote ci biir émission bi indi seen contribution indi également seen i xalaat mais en attendant ñu ngi fii euh, fas yéene waxtaan ak yéen à commencer peut-être par Ibrahima Pouy mi nga xam ne miin ngeen ko xam ngeen ko seen Pouy ñu lay nuyu bu baax a baax. Ah, Simon ñu ngi lay fay bu baax a baax di la ziar bu baax di ñaan suñu borom euh, bu defal tawfeex ba ngay yàgg jiite émission bi di ko ñaanal ñëpp ñu ñuy bàyyi xel. di nuyu suma Serigne Serigne Saliou Guèye. <laughs> waaw inter. mu nekkee si xam nga moom Serigne ah, Saliou gi nga. waaw gi moom. par A ou par B moom ñëpp ko koy wormaale moom loolu moom lu wér la moom moo tax léeg sax gars yi dañuy naan pour pour ñu bañ eh, kii offense Serigne Saliou dañu ko naan sax waaji waaji ah. mais nag Serigne Saliou gu mot la ndax eh, en dehors des émissions en dehors de ses chroniques. Euh, nit ku nit ku jàpp njàmburum la parce que chaque fois avant ñuy daje ci émission yi boo ko fekkee day toog tout seul te buñ paree émission dañuy waxtaan ak moom aussi te xalaatam lay joxe ak xelam li ngay faral di wax dëggam du dëggu ñëpp dëggu ñëpp aussi du dëggu kenn donc exprime la idéem la te c'est un professeur li tax ma wax ko mooy damay nuyu benn élève am ancien élève am euh, Dieynaba Sow dama defoon benn émission après ça m'a coûté cher mais c'est ça c'est euh, bi nekk ci moom jërëjëf jikkoy kilifa gi te professeur la aussi te mun foog mu nangu aussi. Mhm. gars yi des di ko joxer bi. donc di ko baalu àq nag mhm. ndax Serigne Saliou gi di nuyu suñu honorable invité bi. donc dalal si jàmm Birane Bari. di nuyu waa Grand Yoff waa Scat Urbam xar yàlla surtout fi mu juddoo waa Ndeeseer Diourbel di ñaan yàlla suñu borom lépp lu ñu dugg rek suñu borom dugal ci loxoom. may soli Souleymane Sow tapissier tey lu ne daj naa ko ci moom parce que déedéet. oui nag bàyyi nuyoo. dama ñëw di waxtaan ak moom ci affaire tapisserie. bàyyi bàyyi lu nuyoo individuel. waa ji ma ne ma man man man man Sonko ma ne ko waaw Sonko laa faral jarul nga may poñe. nuyoo nuyoo communautaire. non non je c'est une manière euh, de de dédicacer l'ensemble des militants de. jërëjëf du Sonko parce que ay sénégalais lañ. d'accord su weesoo critiques yeeg. objectivité bi ñuy jox suñuy xalaat que muy Benno que muy Pastef que muy aar ak ku mu munti doon. Mhm. askanu Sénégal njëriñam. mooy ñu tàmbale ci bisimilah rahmaani rahim yi. Mhm. yeggali ci alhamdulilah rabbil alamin di ziare ñëpp. jërëjëf jërëjëf Ibrahima Pouye euh, le grand professeur Serigne <laughs> Saliou Gueye ñu lay nuyu di la dalal. Euh, merci Simon maa ngi lay nuyu. Euh, maa ngi nuyu Sénégal yëpp yi nga xam ñu ngi seetaan fii ak bitim réew. Mhm. di delloo vraiment njukkal aussi Pouye. moom neex na débattal daal parce que chaque mhm. fois il cogne et c'est ça aussi mhm. un débat toujours contradictoire ci la xam-xam di génne toujours mhm. au passage vraiment sama élève boobu mu tudd léegi Dieynaba qui est vraiment ma fille maa ngi lay nuyu au passage comme à l'endroit aussi de l'ensemble des élèves yi ma considéré comme vraiment samay doom di nuyu aussi vraiment notre euh, honorable invité monsieur Barry di ñaan yàlla aussi comme tout le monde que waxtaan bi ñuy def fii que mu nekk njariñu sénégalais yi vraiment gindi leen aussi ci li nga xam ne moom lañu jëm le 31 juillet. Mhm. jërëjëf jërëjëf comme ni ñu leen ko waxee comme assemblée nag ñëpp ci bokk coalition yi ni mu leen ko waxee ñoom ci la ñu bokk euh, monsieur Birane Bari yow nga teewal fii ànd jëfal Sénégal euh, ki ko jiite di moom Mamadou Diop Decroix. ñu ràññee ko lool également ci biir réew mi il a eu un parcours euh, politique il a eu également un parcours à l'Assemblée nationale en tout cas une expérience euh, yéen dañ leen a mais teewul am ngeen seen wàll ci campagne électorale bi am ngeen seen wàll ci dëkk bi donc ñu lay nuyu di la dalal. Mmh. waaw waaye nag. waaw même taxawaay bi aussi moom la ñu daal. waaw moom taxaw na taxawaay vraiment intellectuel. ku xam daal maanaam li muy wax te mën a waxtaan ak Sénégalais yi. mën a aussi wax loo xam ne day jëriñ askan wi. loolu moom vraiment seen njëriñ ci moom. te rajo yi moom maa ngi nuyu kii rek maa ngi doog a gis. ñu ngi lay ziar sëñ Bari ñu ngi lay ziar waaw ñu ngi lay ziar bu baax. waaw jërëjëf. mais aussi di way way bëriwul ñu ñu ay kii ci média yi. Mhm. ñu xam ne ñi euh, ñu waroon a recalé. Mhm. am nañu seen kàddu. Mhm. dëgg la waay seen la Sen TV la fait. waay waay merci si moom. waaw loolu am solo la. parce que aussi nit ñi yaakaar na ne ñi nekk en ligne rek. waaw alors que nit ñi nit ñi. suñu bopp amoon na loo xamante ni bëggoon nañ ko di wax. bien sûr bien sûr. même bu dee dañoo recalé. am na loo xam ne bëgg nañ ko taxawee. wax ko ci Sénégalais ba ñëpp. waaw kon boog ñoo ngi sant bu baax ci ci invitation bi waaye nag di nuyu ñi nga xam ne ni kilifa yi nga xam ne ñoo ñu fi yabal sunu camarade secrétaire général Mamadou de Decroix ñu ngi koy nuyu mooy moo nekkoon sunu tête de liste bu coalition bi. waa di nuyu suñu waa coal waa parti bi yëpp ànd jëf PADS yi nga xam ne actuellement xam naa ne ñu ngi koy suivre de partout waaye di nuyu aussi waa Géejawaay sama xarit yëpp di nuyu waa surtout marché bu bees Baxdaad di leen masawu aussi ci mbiru ndox mi xam nga rek. Mm-hmm. foog ñu ajusté quoi xoolaat yenn kii canalisation yeeg yooyu pour pour doog a mun a kii mm-hmm. waaw maa ngi. ndox mi moom dinañ ci ñëwaat. Euh, ci kanam ci jàngat boo xam ne peut-être ku ci nekk également am nga ko ci. Euh, par rapport ak li nga xam ne dund nañ ko démb à Dakar ak peut-être yeneen euh, yeneen i gox ñuy xaar de également Alla Gaye Alla Gaye ñu ngi koy xaar moom dafa war a jóge ci waa gëm sa bopp ñoom également dañ leen a recalé. mais am nañu seen i wàll ci yëf yi déjà que fan yëpp ñu nga gis seen leader sur le terrain euh, moom bu ñëwee peut-être dinañu gën a expliquer euh, Cheikh Oumar Talla ñu lay dalal di la di la nuyu. waaw maa lay nuyu nekk nekk ci ndox mi rek. Euh, di masawu da nga doon ngàcc wala da nga doon jàppale askan waa quartier Ndiassane ci wetu arène bi. donc ak taw bi xaw na metti mais ñëw nañu fa rek ak nu ñu leen mën a taxawoo. Mhm. ci dispositif yu gën a gaaw parce que am na ay solutions yi ñuy def pour. ngàcc mais tur ko loolu solution. Mhm. mais quand même xotti ay yoon ba ndox mi mën a dem ba nit ñi mën fa nekk ma gis fa démb taxawaayu chef de quartier bi mu koy nuyu ak maire commune bi maire commune Pikine Nord mais comme grande gueule la balaa muy nekk ñëpp ci bokk euh, ñun aussi waa grande gueule demuñu assemblée mais mën nañ am ni taxawaayu askan mi lañ taxaw dafa am benn projet bu banque mondiale ak état du Sénégal projet bu tudd euh, PEJA projet pour l'employabilité des jeunes par l'apprentissage nga xam ni dañ ci war a fii ba deux mille vingt quatre lu toll ni ci euh, trente deux mille jeunes. Mm. Euh, léegi nag projet bi di woon ne dañuy jox xaalis mais artisans yi ak ñenn métiers yi pour ñu jàngal xale yi mais ñu laaj leen yan moyens la ñu soxla ba ku nekk bind projet ba ñu wax leen moyens mais malheureusement pour ñoom euh, bi ñu leen woowee pour ñu dem jël si moyens yi nga xam ne moom la leen jox ñu dajale leen fii ci wetu GDO bi. entreprise bi nga xam ne moom moo gagné marché bi moyens yi mu leen jox bokk ak ñoom yi nga xam ne moom lañ laajoon. moom lañ leen laajoon ensuite mu am njëg loo xam ni def daanaka dañu ko doubler comme surfacturation. <laughs> parce que boo woowee nit nag nga defal apprentissage nga dem laaj ko yan matériel nga soxla nga dem indi matériel yoo xam dëppawul ak moom donc ñuy wax rek état du Sénégal na bàyyi xel ci projet yu mel noonu. di def suivi bi ak évaluation comme nag yóbbante la woon. il ma wax ko pour ñu bàyyi xel ci ci yu mel noonu. Mm. voilà jërëjëf jërëjëf mais mais nag séeréer dañoo naa ñaari séeréer Simon tey daa sañse Ibrahima Pouy sañse mooy nuyu sëñ Saalew oh, di nuyu su sunu gan gi bari di ko di ko nuyu bu baax di wax ni aussi euh, bu dul moom euh, leader am bi muy wax muy Modou Diop Decroix ku jara delloo njukkal la parce que moi je le dis euh, Sénégal démocratie bu eggee fii du rek waa PDS wala Ablaye Wade mais on a eu des gens de la gauche et peut-être suñu génération ñun xamuñu Modou de Decroix mais bokk na si ñi nga xam ni jël nañ leen incorporé leen dans l'armée ci jamonoy Senghor. d'accord euh, seen engagement militant mu nekk bu yàgg. Euh, mu nekk nit ku dal mais nit koo xamante ni à chaque fois que mu wax di nga ci jëlee njàngat te di nga xam ni quelqu'un la boo xam il est désintéressé par par la chose publique mais engagement bi mu am depuis mu nekk xale ba tey donc bu baax na ñu mel noonu ñu leen di di di wane di ko nuyu di au passage. jërëjëf jërëjëf auditeurs yeeg internautes yi ak euh, téléspectateurs yi fàttali leen tam ne. Euh, li tax may wax internet yi ça veut dire que mën ngeen ñoo suivre ci euh, réseaux sociaux yi rawatina Facebook Zik FM l'officiel ak Sen TV l'officiel rawatina ñi nekk bitim réew également wala ay zone yoo xam ne xëy na rajo bi wala télé bi jafe na nga am ko foofee donte léegi nag yëf yi siiw na partout euh, ak yooyu donc ça veut que ñëpp ci la ñu bokk même ñi nekk bitim rek parce que bitim réew également c'est la onzième région kon ñoom am nañu wàll ci yëf yi kon nag ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax di leen sant ci seen takkute ci seen pas-pas ci émission bi premier sumb bi peut sur la situation d'hier parce que euh, tubaab day faral di wax naan après la pluie le beau temps mais apparemment ce n'est toujours pas le beau temps à Dakar Grand Serigne Saliou ginnaaw taw démb bi nga xam ne ñu bëree bëri indi na leen jafe-jafe ak même yenn dégâts yi nga xam ne gis nañ ko ci rawatina ci côté euh, pont de l'émergence tali bi nga xam ne xàppati woon na côté boobee et ça fait toujours débat. merci Simon vraiment question bi nga laaj sax xamuloo ko parce que je m'attendais tellement à ça. te <laughs> boo gisee lu tax ma dama seetaan benn reportage RTS démb et ça m'a RTS liñ koy coow lépp je crois que hier ils ont commis une erreur monumentale nan nga mën a defee journal télévisé tu sélectionnes une image tu dis dans le reportage après la pluie le beau temps et nga ne suñu reportage tel et tel ils ont montré quelque part où il y a même pas des des infrastructures Et dans le reportage, ñu ne ici, il a absolument rien et ça grâce tout simplement aux infrastructures qui ont été dégagées là-bas. du taw bi terewul kenn dox yi ay soxla. oui cest dire que en réalité c'est comme si dañ ne à a à cest dire c'est c'est le c'est le beau mm-hmm. au moment où des quartiers qui sont inondés les gens sont dans l'eau tu fais un reportage pareil mais man cest dire moo tax ma ne démb RTS lu ñu leen mën wax rek c'est-à-dire ci lu ci ci lu ñaaw et puis comment un nan nga mën a xamee li xew Pikine Géejawaay yow nga nangu dem di wax loolu am na loo xam même suñ la ko waxee sa santé sax yow en tant que journaliste da war a opposer la clause de conscience nga ne du ma ko def parce que xam nga ne Géejawaay Pikine ñu ngi ci ay jafe-jafe et loolu c'est manque de respect aux habitants de Guédiawaye aux habitants de Pikine et aussi parce que ñun gis nañ jafe-jafe yi nga xamante lañ nekk démb Dakar ban koñ ban quartier moo amul jafe-jafe Et tu dis que maintenant, il y a le beau temps parce qu'il parce qu'il y a des ouvrages aujourd'hui, ils ne souffrent même pas des inondations. Mais, peut-être l'ONU de, RTS, c'est peut-être le journaliste qui a fait le reportage. Bon, là, ouais. Sa rédaction, ou bien, ou bien ça est en direct. Bon, de la RTS. La RTS, dafa am muy doxé. Xam nañ comment l'information aussi est contrôlée là-bas. parce que il y a un contrôle des consciences loolu Demba Ndiaye waxoon na ko fi média public absolument mais mais mais dafa am mais mais nag Simon ak lu ñu la mën a contrôler mm-hmm. am na loo xamante ni journaliste kenn waru ko wax loo xam ne dafa dëppoo ak li nga xam mooy dëgg mm-hmm. donc man reportage boobu je crois que vraiment njuumte la ci journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko def mbënd mi déjà démb benn pluie rek tous les quartiers de Dakar son inondés. on a parlé de 84 millimètres comme 86. mais moom la la bu man man. Mm-hmm. démb jaa fekk daf ma fekk Scat Urbam. yoon bi may emprunté heureusement. parce que damay dem bay dugg rek gis benn taxi boo xam presque noyé na ma ne fii bu ma fi jaaree du ma génn ak sama oto finalement dama mujj dagg jaaral beneen yoon mais dama mujj dem laxatu ci ban ba garab taxaw xaar ba taw bi jeex gis nga la mosquée de Scat Urbam est pleine d'eau l'IEF est pleine d'eau c'est-à-dire kër yi nekk foofu yëpp da ngay gis ni ñuy ndox mi ni muy génnee Dakar aujourd'hui il y a problème avec les inondations et j'ai l'impression que ñun suñu gouvernants yi li leen gën cest à de résoudre le problème des inondations aujourd'hui à Dakar. On a l'impression que chaque année, les choses s'empirent alors que nos autorités ne nous disent pas la vérité. Parce que boo bëggee taxaw nga ne presque inondation fii ce sera un vieux souvenir mu taw benn taw laa de imagine benn taw mais si les pluies répètent ñun fu ñu jëm. mais est-ce que c'est pas parce également Dakar y que du goudron et de l'asphalte. waaw mais waaw mais vous allez yoonu ndox yi la ñu Simon boo dee tabax ay tali mais il faut nga def ay canaux d'évacuation des eaux pluviales le projet waaw mais le projet hmm. mais loolu moo tax ñu ñu samp ko le projet c'est des c'est plus de cent milliards te je crois que loolu c'était tout simplement pour évacuer les eaux pluviales mais on a l'impression aujourd'hui que rien n'a été fait avec le projet bi nga xam ñu ngi koy déroulé de 2012 jusqu'à aujourd'hui am na phase 1 actuellement ñu ngi ñu ngi ci phase phase phase 2 bi te phase 2 bi boo xoolee encore c'est 103 103 ou 104 milliards donc finalement tu dis que cet argent là à quoi ça sert man mën naa d'accord ñu ne chaque année parce que loolu programme la woon plan la chaque année ñu ne fii dootoo fi gis inondation fii dootoo mais on a l'impression que y a des yoo xam c'est comme genre drame de Sisyphe chaque fois c'est la même c'est le même calvaire encore qui revient, qui finalement nit ñi les gens là on tourne tout simplement en rond donc le problème est là xaalis baa ngi fi les ressources humaines est là sont, sont, sont là mais finalement quel est le problème lan moo tax on ne peut pas résoudre le problème des eaux à Dakar waxuñu ne. d'un tour de baguette magique on règle tout mais au moins. concentre y a parce que man li ma tiital. première pluie Dakar est inondé première pluie cest dire hier mënoo jaar fenn jaa fekk démb dama jaar euh, tout juste booru rue Aimé moo nekk ci booru hôpital fan wi. mais Simon c'était archi plein d'eau. ndox kese nit mënu fa c'est-à-dire oto mënu fa jaar mais ça c'est un problème. d'accord. Ah, il faut qu'on résolve ce problème-là. D'accord, ah. d'accord. Euh, Omar, quand on parle plus à Dakar, on part tout suite à la, à la banlieue. am na ci ñoo xam ne buy xiin tuuti rek ñoom ñuy euh, ñu nekk ci njàq rek. et puis euh, day euh, fekk si bu ren a vu des images hier à Kër Massar. yi rek yamul foofu léegi-léegi bi may ñëw ci yoon bi ci côté arène nationale bi juste en face théâtre de verdure bi dafa am benn dal bu effondré. Euh, dal bi fi mu effondré euh, mayga bi moo fi nekk gaa yi naan mayga bi ma lay heureusement ba nit ñi peut-être guddi la ñuy fréquenté mayga donc beneen phénomène surtout en banlieue parfois Médina nga dégg kër yoo xamante ni euh, yàgg na et souvent ndox mi su ñëwee ba egsi si dal bi ak doole bi muy àndal mu mu màbb et c'est pas la première fois chaque fois mu am ñu si décédé donc ñi nga xam ni ñooy collectivité locale yi ba pare ñu war a vérifier ndax batiment bi bu ñu gisee nii mu ngi menacer ruine ba ci chef de quartier bi ñu informé nit ñi mhm. nga xamante ni protection civile dina def liggéey mais Sénégal il faut jéyee am ñu ci jóg a joxe loolu c'est vrai qu'en parlant de maison effondrée y en Xaar Yàlla voilà mais heureusement a pas y a pas léegi euh, chaque année yooyu di am donc baax na ñu mesure yu ñu jël ko parce que nit am dëkkuwaay warul tax mu jël yenn risques yi surtout que kër goo xam ni am na plus de trente ans vingt ans te léegi nit ñi dañuy jékki-jékki rek yokk étage pour wut koo loué wala pour wut dara mm-hmm. te teguñu lu jëm ci wàllu sécurité beneen bi sëñ Saliou laa di question bu may mës di laaj la dañ ne dañu teg plan décennal pour régler wàllu inondation boobu dix ans yi voilà ñu ne fukki at yi def nañ ci lu mot sept cent cinquante milliards mm-hmm. waaye la question que je me pose sept cent cinquante milliards boo ko defee fii xanaa ñun dootuñu gisati ndox Euh, RTS du ma ci sori parce que li ñuy def c'est de la propagande c'est vrai que état bi am na gox yoo xamante ni am na question yu mu ci réglé lu mel ni Dalifort am na lu mu ameliore wala jidda caare kaw mais booy wone wane li nga xam ne mooy la réalité des choses li Njaga Mbay doon woy naan yàlla moo ay ci pootum buur da ngay weer ba mu fendi mu taw ci kawam à chaque fois que nag ñu indi ay yenn programme yi kàcc wala ñu lëndëmal nit ñi bu yàlla ji tawee wane jafe-jafe yi nga xam ni moom moo am jafe-jafe bi nag du ay solution ponctuelle xëcc moto pompe ngàcc xëcc ndox booy xool am na ñoo xam ne business inondation bi ci la ñuy régler seen bopp wala ñi am oto yi ñëw ngàcc dem tuuri du solution man du ma scientifique mais je peux pas ni comprendre que Dakar nga xam ni géej moo ko wër géej a ko ëmb boot ko ñu waroon a jël génie militaire wala génie civil xotti ay yoon ba ñu am évacuation bu ndox mi ñëwee dem yoonam mais ni ñu amee volonté politique ne dañuy defar ay pont de l' émergence mu màbb te dinañ ci ñëw wax la ni def nañ ay autopont ñun ñu jàpp ni baax na parce que dinañu dimbale ci fluidité si on avait la même volonté pour régler